mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV ñu am mbégte saa su nekk rek di jàkkaarloo ak yéen tey nag ma ci àndaat nga Babacar sama góor bu ñaawul bi Babacar nuyu naa la. <laughs> Ami Diouf sama séréer bu ñaawul bi maa ngi lay fay ba am nga jàmm. ça va alhamdulilah. yàlla na jàmm yàgg. naka nga xëyee. waa sant naa yàlla de macha allah maa ngi sant ndax xëy yeewu rek xam nga lool rek amu amuñu pireem daal dèjà. boo yeewoo yàlla may la kattan ak tal. xam nga dangay sant sa borom quoi moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax baax di ñaan yàlla rek mu dolli ñu daal. nga xëy rek def sa tout blanc quoi. nga jàppale gis nga noonu la. xam nga Ameth Babacar moom. voilà bu ko defee rek ñu dem seetaan yi revue des titres daal di dellusiwaat ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. lundi 18 janvier 2021 dañu ñëw ak yéen ci likkaay suñu lamb la ñuy xëy doo ko. yëglikaay bi di sunu làmb nag moom tey combat royal bi xëy fësal diggante Modou Lo ak Ama Baldé mel ni nag combat ba moom fi mu nekk nii wéekloo nañ ko lañu ko nar a fa nga xam ne ni moom moo doon ca Pikine daal ci arène nationale ba daal fesee ni nag tëgg boobu combat muy nekk nga xam ne ni moo di wéekloo waaye jamono jooju nga xam ne nag wéekloo lañ fesee ne def combat ba am na ñoo xam ne laaj nañ leen ci seen xalaat maanaam bu nekkee wéekloo kan lay gën a arrangé mel ni ki nag Max Mbargane moom la mu xëy xamle nee bu keroogee daal képp ay volonté gën a engagé wu daal nee na bu keroogee moom mën naa gagné la nga xam ne nii moom moo di combat ba Balla Diouf tamit gis na ne daal li ci am ba des moom mooy su fekkente ne def nañ ko wiikloo ca Pikine moom maanaam dina doon loo xam ne ndonnet lay ndonnet lay doon ci Ama Baldé wala boog dolent maanaam plus lay doon ngir moom Boy Kayre tamit dafa mel ni ñëw na ci mbir mooma mel ni ki nag bu keroogee bu ca amee moom ci côté Ama Baldé la fas yéene féete loolu mooy xam ne ni moo di Boy Kayre ci mbir mooma mel ni ki nag wiikloo booba moom nekkul ne Modou Lo Ama Baldé dong ñoo ko nar a def ndax kii di jëy seen moom tëgg giri di ak Abdou Diouf naaru Sogas ak Jackson jëy tamit tey xëy na seq ak waxtaan Abdoulaye Dembélé la mu xam ne moom itam daal pare na ngir kombaam yooyu mu tëgg ko la nga xam ne nii moo di huis clos mel ni ki nag jéey moom ñëw na ci lu yaatoo yaatoo yaatu daal ci la nga xam ne nii moom moo di làmb ji ak fi mu nekk nii ci fi ñu toll ak nga xam ne nii daal moom moo ci am ci wàllum démarche sponsor ak loo xam ne nii état war na koo def yu mel ni ki mel ni ki daal tey jéey xëy na tey séq ak ki nga xam ne moo di Iba waxtaan wu yaatoo yaatu suñu làmb xëy tey indil ñu lu mel ni ki keneen koo xam ne nii moom ab combat bëgg tëgg muy Xaadim Sàmb ma nga xam ne nii moom mooy nekk ci làmb ji nekk ab animateur waaye itam nekk la nga xam ne ni moo di ab promoteur ñaari mbër yam bëgg a tëgg nag ñenn la mooy diggante ama neex bu yara bu tëngeej ak ka nga xam ne ni moo di Moussa bu yarax jàpp na ne daal ñoom ñaar bu fekkente ne daal raisonnable nañu maanaam la ñuy wax ay nopp mën na koo dégg wala xel nangu ko nee na suñ ko nangoo daal wala boog buñ defee lu mel noonu na moom pare na ngir ngir organiser seenu combat tëgg ko keneen koo xam ne ni moom engagé wu na ba pare fas yéene nag defante muy rëg-rëg jàppal yëglikaay bi di suñu làmb daal xamal nañu ne kii di rëg-rëg moom arrivé na fa nga xam ne ni moo ca Singapour daal yegg na fa combat bi nag ajjuma ji la ko fas yéenee jongante moo ki nga xam ne ni moom moo di ngalan ni maanaam 14 heures GMT daal la ñu xëy lañ ñu xëy wax maanaam ñeent ñaari waxtu ci bëccëg ci heure Sénégal ca la fas yéenee jongante ñeneen ñoo xam ne ni moom dañoo xëy tey di wax seeni i mettit ak seenu jaaxle muy ay mbër yoo xam ne toog nañ lu toll ci fukki weer yoo xam ne ñu ngi tëj làmb ji bëriwuñu njëga jóob ba nga xam ne ni lutteur la moom xëy na tey di wax ci situation yu métti yi nga xam ne moom la ñuy dund mel na ki nag crise sanitaire ba moom itam Cobra wax na ca soq ma Pikine tamit xëy na di wax ci la nga xam ne ni moo di mbir moom a nga xam ne daal mooy lamb ju tëju ya na ne ñoom lamb ji mooy seen gagne-pain ca la ñuy nga xam ne moom la ñuy yóbbu seen ay kër moo tax mu jàpp ne fi mu nekk nii daal ñoom ñu ngi ci ay difficultés xam ne yu méttee méttee métti la xooyantaan numéro 2 moom xëy nañ wan ñu ko mook numéro 1 ba moom nag mu nga nekk fa nga xam ne moo di aslem géejawaay ci gri booba daal fala na waaye nag moom ña mu xëy sampal ndën mooy limousine bu tëngéej ak tigre bu lamsaar daal la xëy tey sampal ndën ne fas yéene na bëre ak ñoom Gaston Mbengue tamit ba tey bu ñu demee ci Equivox dañ ko fay fekk mel ni ki daal moom ñëw na di leeral digganteem ak Aziz Ndiaye ak combat ba nga xam ne dañ ne woon moo ko organisé te am ñu ne Aziz ko organisé mu doxoon ci diggante Modou ak ballagay Gaye loolu ñëw na indi ci ay leeral ak ay ànda yoom doom yoo xam ne daan naan rek ñoom ci làmb ba tey ñu continué di dundaat Gaston Mbengue mu mel ni ki nag waxtaan wa mu nga ca fa nga xam ne ni moom moo di ca Equivox voilà li moo nekkoon revue euh, des titres ñu daal di ñëw rek ci seen journal suñu làmb ñu ñëw ñun nag ci euh, combat royal bi nga xam ne moo di moo Lo ak Ama ñu ko war ñu war ko organiser mhm. à huis clos nga yaakaar combat boobu noonu kan moo si euh, bénéficié wu ci ñoom ñaar kii di Maxime Bergan wax na ci Balla Diouf wax ci Boy Kayra tamit wax ci waa ami dama lay nuyuwaat di nuyuwaat internautes yi ñu suivre wala téléspectateurs yi ah combat royal bi moom ku ne xam na ne promoteur ba jàpp na ne bu fi sësee dana ko def huis clos ba defee naa ne am nañu génn ñu bokk ci structure Luc Nicolaï Enco d'accord nañu huis clos dana ca am boo amee nag kan moo ciy profité wala ku muy gën a arrangé ci ñoom ñaar ah dama naan ñoom ñaar ñëpp si benn côté mën naa ne du leen gënal ci maanaam seen lañ leen xamee woon seen public wër leen ñu yëngatu muy neex ci ñoom kon côté boobu dama naan dina leen manqué ñoom ñaar ñëpp foofu dama naan ñoo fay yem yaa ngi dégg waaye nag ñoom ñaar ay mbër lañ yoo xam ne du ñu ay xale ci làmb parce que Modou loo defe naa tey mu duggee si làmb 2006 ba fi ñu koy waxee nii ñu raa ñàkkante fekk ni mu toll ba nekk roi des arènes defe naa nekkatul tey gan ci làmb wala amul bis bu mu warta mën a bëree Ama Baldé kazalika noonu ci làmb maanaam Modou ko jiitu ci làmb ji moom su ma jum mu ngi ñëw ay côté 2010 yooyu tey mu dem ba liggéey ba war a bëri euh, combat royal ça veut dire ko kon am na lu mu liggéey ñoom nag defe naa kon tey ñu bëri huis clos wala ñu bëri mbooloo public bi ñëw pour man ci ñoom bu amee différence bu mu leen lu mu leen di indil ay problème daal xëy na mooy public bi ñu tàmm a gis te duñ ko daan gis daan ko gis xam nga ama yaa yëngal Pikine mhm. mu tëgg mu fëgg ngembam pagaay mbay tëggal ko ah loolu loolu beneen affaire la. c'est vrai que public bi da xam nga loolu làmb tamit ak public ami loolu kenn waxaale wu ko loolu dafay neex moo loo fële ah Moussa Yacine tëggal ko mhm. moom tamit mu fecc feccam yooyu loolu c'est autre chose public bi yëngu loolu dafa neex mais nag ku amul yaay nàmp maam moo tax ñi itam liñ ci wax comme xalaat am na solo li Max Mbargane wax Balla Diouf wax ko Boy Kair wax ko maanaam bu ñu defee huis nag ki gën a engagé wu li Père Max wax am na maanaam képp engagement si bis bi mhm. yaa ngi dégg wala nga xam ne nii moom moo gën daal bëgg mbiri bu keroogee mën na def différence effectivement parce que nag xeex boo xam ne yéen ñaar doo ngay ne ca géew ba ak arbitre public ñëwul kenn ñëwul ak quelque ci presse bi ah bu keroogee moom képp engagement mën nga ko gagné Balla Diouf tamit jàpp na plus lay doon pour Ama mm-hmm. waa xëy na mën na ne parce que moom arène bi mu ngi côté këram yaa ngi dégg loolu yëpp mën nañ ci profité Boy Kayre jàpp na ne ci côté pression mën naa moppe ci Ama waaw parce que mën na nekk mën na bañ ne sans rek tout possible parce que Ama xale la boo xam ne la mu gëmoon bu dee moom la gëm ba tey ne fu mu dajeek mu mm-hmm. mu bëggoon am na ko mooy bëreek Modou kuy daanoo nag ku ñuy daan loolu yàllaa ko xam dëgg la ñu daal di ñëw ci Dieye Sène moom mu taxaw ngir rek dëdmal ñaari combat yi kii di Gris 2 kii di Gris 2 ak Abdou Diouf Jackson Junior ak Naaru Gossas moom pare na pour organiser ah, huis clos Naaru Gossas da ma may ami Naaru Sogas lañ la wax Naaru Sogas xam nga Sogas Sogas xam nga ko xam naa ko voilà nga ma ah, Naaru Gossas bu fi waxati Naaru Gossas kii mu naan Naaru Gossas <laughs> waaw am na solo jiy seen <laughs> ñu koy nuyu di ko ziar moom tamit di jeune promoteur boo xam ne mu ngi def lu am am solo waaw parce que loolu mooy li ama maanaam bu fekkente ne amul lu mu loo xam ne moo ko gënal amul te def ko à huis clos rek loolu moom moo fii li mën a nekk tey mais nag loolu huis clos bi huis clos bi yëpp dina fekk tey état accompagner leen rek mhm. defe naa Abdou Diouf Gris 2 daaw la taxawoon ñu waroon ko bëre yàlla def amul mhm. ren mu taxawalaat Naar Sogas Jackson Junior muy combat boo xam tamit ñëpp a ngi koy xaar mhm. ah, bu demee ba xamatul maanaam ne a ne ami mu def ko huis clos parce que moo fii am mais dañuy wax état bu keroogee rek na leen accompagner pour que promoteur yi ku ci ne la nga tëgg ñu mën a fexe ba def ko huis nga xam ne boo ci génnee dina la doo ci amee ay jafe-jafe daal fi nekk nii nag wi clos bi lëmbee na arène bi de. ah waaw du mën a ñàkk comme moo visé corona ñu rey. ba tey rek ñuy des ci huis clos boobu ki nga xam ne moo di Xaadima Samb moom itam ma bëgg na euh, dënmal combat Moussa Ndoye ak Amaneex. waaw da koo bëgg a taxawal moom mm-hmm. boobu combat dana bu ñaari mbir yi raisonnable mu jox leen avance Moussa Ndoye xam nga ko moo dëkk Yarax a neex mu nga lébu gi moo dëkk Tëngéej muy combat boo xam ne derbi lébu lay doon suñu papa Xaadim Samb ñu koy nuyu di ko siyaar ndax moom mm-hmm. li tax ñu jar euh, war di ko ñaanal chaque jour ñun ñu yore micro man dafa am lu bëri lum ñu jàngal ci suñu dundu ça veut dire que mooy bi muy ñëw dakaar ni mu fi ñëwee woon ak lim daan liggéey wàllum boucherie dibiterie ba tey débiteur a ngay dox mu liggéey Sud FM liggéey RTS fu ne mu jaar fa ba tey mu delluwaat 2STV Aladji Ndiaye jëlaat ko mu continuer liggéeyam ba pare tëgg ay combat defe naa kon ko am mérite la ñu koy ñaan yàlla gudd fan ak wér rek di wax mbëri defe naa tey bu leen Xaadim Samb bëggee tëgg a metti mën a nangu muy Moussa Ndoye ak ama neex bu neex neex la a mën a doon euh, combat MMA ñu ñëw ci MMA bi rëg-rëg mbër mu mag bi fi nekk ni moom yegg na Singapour loo ci wax Babacar lu ma loo ci mën a dégg daal rëg-rëg arrivé na yegg na ajjuma la fas yéenee jonganteeg Alain Ngalani Alain Ngalani nag ah nekk na adversaire boo xam ne koo gis xam ne moom bu ñu bu bu bu bu defe naa rëg lu yomb parce que bu ko bëggoon du dugg li ñu mën a def tant que ay mbokk sénégalais muy défendre suñ couleur réew dañ lay dëgmal yàlla na ko si yàlla may ndam lu set wecc comme ni mu ko amee woon fii ci première sortie bi mu defoon fii à Dakar am nañ ci yàqin parce xale la boo xam ne macha allah côté sport bi muy def moom wane na ne moom daf ko bëgg gëm na ko te itam mu ngi ko jox axam bu baax a baax te loo gëm olof a ko wax ami mu gëm loola waaw Dakar sa boo koy jaay da am fu lii sundur wayoon na ko dëgg la waaw ñu ñëw nag euh, ci euh, ñett mbër yi di euh, Ndiaga Diop Cobra ak Sokh ñoom nag ñu togg dix mois yoo xam ne dañ koo galéré maanaam bëreewuñ ko loolu lan nga mën a waxee Ndiaga Diop numéro deux mhm. wala Ndiaga Diop Cobra numéro deux ak Sokh mhm. Sokh ñi ñëpp boo xoolee ay mbëru Pikine lañ maanaam ñoom mettitu saison bi dix mois ñu toog bëriwuñu mu metti ku ne xam na ne metti na wax dëgg yàlla ku am sa liggéey war di ci liggéey di ci tedd fukki weer nga toog ko bay bëgg a dëgmal fukki weer ak ñaar di at loolu amee ku ne xam na ne dana metti te ñoom ñi ku ci ne yor nga kër yor ay responsabilité am ñu la yaakaar yaa ngi dégg mais nag li ñuy li ko indi mooy corona bi kon nu ñu ñaan yàlla rek mooy lamb yi ñu xool nu ñu koy organisé ba ñoom ku ci ne ma dellu ci li nga nekkoon mm. waaye man daal dama ci sax mujjati parce que dafa doy waar fi nekk nii moom yokk yi muy dégg saa yoo xëyee am loolu yéeme na. metti na de fi a activité liggéey dinañu gën a am. waaw wàcce am na solo waaw mais ñu xaw ko yoromal tamit parce que métti na métti na ci ñenn ñi. bakkan day wér de daa wér de daa amul prix. dëgg bu ñu foofu ñu daal di dem ci xoyantaan 2 moom nag fi mu nekk nii nee na pare na rek pour affronter ki nga xam ne moo di limousine ak tigre de l'Ansar. ah waaw bu ko neexee borom pitiku mbag boo xar xol ba ma nga nga ciy fekk ak tigre bu lamsaar adversaire la ku ne am na lu mu jot a def ci làmb mhm. limousine u kazalika naka noonu moom xoyantaan bi dafa bëgg a génn te boo bëggee génn. ah il faut nga laaj koo xam ne leer na ne kii boo ko daane ñëpp dinañ la commencé bàyyi xel moo tax li mu def am na ci droit moom xoyantaan numéro 2 est-ce que nag ñi dinañ nangu bëre ak moom foofu la question bi ne te yaakaar naa ne boo ko doxoon itam na bañ a yomb pour ñu bëre waaye nag am na droit bëgg bëre ak ñoom et puis koy wax rek mooy na gën a liggéey su liggéeyee d'ici quelque temps xëy na dina wane lu tax mook ñoom bu keroogee moom kenn dootul ma dox sa doole doxul jàmm waaw loolu de am na voilà nay ànd xel doole xel a gën a wóor na ah, mi ngi noonu de nuyu ku mel ni Cheikh Omar mm. borom Equivox kenn du moom ca Paris borom doole naanaan la naanaan la maa ngi passage moom itam voilà dafa mel ni rek euh, information yi fii la yem tey Babacar lan mooy sa dernier mot waaw maanaam di ñaan jàmm ci àddina bi mais rawatina réew mi nu ne muy Sénégal yàlla ñaan yàlla yokk jàmm ji mhm. ah di nuyu tamit ñi nga xam ne ay soppe Babacar lañ bu ma ko waxee mooy ñoo xam ne formé nañu ay groupe def fans club Babacar wala 100 pour cent Babacar maa leen di bëgg yaa ngi dégg waa ndaanaan bu yem rek man ma mataguma sa ndaanaan <laughs> sa ginnaaw rek laay nekkee ñoom jiga maa ngi di nuyu ñoom mhm. grand lay le président fans club bi mhm. ñoom Pape Ndiaye Cédric ah Asso ñoom ñëpp maa ngi di nuyu ah ñoom ñoom ñoom ñëpp bu ma limee dinaa juuma Thiaré Sarr ah ñoom mars ñoom ñëpp Essa Seydi ñoom fu ci waay nekk rek parce que groupe baa nii ñoom ñoo ko formé ngir rafetlu liggéey Babacar di ma soutenir kon awma seen fay yéen 100 pour cent Babacar yàlla na leen yàlla fay ñoom maam góor jasaaka saal fay Modou marché Tilène ah ak tarkindaa ba ca Espagne moom itam duma ko ci fàtte parce que des fois da ciy baax ñi nga di leen béggee ami parce que li tax mooy mhm. fi ñu ma taxaw moo am solo lool lool lool lool waaw te couleur dafa am solo mhm. ñoom ñëpp daal maa ngi leen di béggee ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee ñoom ñëpp yéen ñëpp maa ngi leen di béggee fàttewuma kenn Youssou Kara waaw maa ngi koy béggee moom itam di tarkindaa supporteru Cité ne ca Espagne di nuyu sama soppe yi ne Espagne yëpp ñoom maam libaas ñoom ñëpp duma leen fàtte ak sama xarit l'international Youssou Ndoye kenn du moom ak Salif Ciss moom tamit ñoo ñëpp di international nekk équipe nationale de basket ngeen jëf yéen ñëpp daal ci gàttal di la ñaanal jàmm <laughs> merci Babacar voilà di dellu rek di leen jaajëfale ci safoo bi ngeen safoo Equivox TV di leen wax rek ba suba ak jàmm